asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme niñ ko safoo di ko defee di leen daral fii seen chaîne Dakar People tey nag ñu seet ci kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable Cheikh Mahi Thiam ñu koy dàkkantalee borom ijaaba sëriñ bi nuyu nañ auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyaaka na'budu wa iyaaka nastain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 di leen ñaanal yàlla yenn yàlla defal ñu tawfiix ñun ñëpp barki baay ñu ngi lay fay sëriñ bi tey nag ñu ñëw seet la pour am ak yow waxtaan waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari si mbirum xam-xam si mbirum ñaan bëggoon nañ la question bi si njëkk rek bëggoon nañu waxtaanee mbirum kaaraange ndax jamono yi ñu toll daanaka dañuy dégg souvent sëriñ si di wax ni dañuy liggéey ci wàllum kaaraange dañuy defal doomu aadama yi kaaraange bëggoon nañu xam nga ñëwoon ñu ci wàllu kaaraange wax ñu lan mooy njëriñu kaaraange ana yan mooy buntu kaaraange. waaw alhamdulilah euh, sëriñ bi ñu ngi sant yàlla. kaaraange moom dafa nekk loo xam ne dafa baax ci doomu aadama bi ndax nit ki boo nekkee ci àdduna te amoo kaaraange amaane lu ñëw dina la këf wala ñëw faagaagal la kon war na ci bépp nit koo xam ne yaa ngi dund ci àdduna bi. ngay dox ci kaaraange ci loo xam ne ëllëg da sa dund dana nekk dund koo xam ne dund ko am tawfiq du am benn jafe-jafe kaaraange nag liñ ci am ci ay bunt bari na suñu toogoon fii di ko wax suba ba ngoon jot du jeex waaye dinañ ci jukki yu am solo yoo xam ne daal yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci kaaraange te képp koo xam ne ñëw nga suñ bunt bañ defal la loolu incha allahu yàlla dina la defal tawfiq dañ koy ci liggéey ci ay xay xay yoo xam ne dafa sax ci armel di juróom-ñaari dëkk yoo xam ne da ngay dem ci armel boobu mu am xëy nga jël ren ba ak xob ya ak xasma dégg nga am ay ay ay alquran yu jël boole ko loolu def ko muy sunguf sunguf soosu noonu am jet yuñ ciy def képp koo xam ne jëfati nga loolu képp ku la jublu ngir lor sa mbir incha allahu dootu ko nekkali kaaraange dinañ koy liggéey ci euh, lépp loo xam ne ci wàllu buntu sunguf danañ koy liggéey ci alxuraan danañ koy liggéey ci sunguf danañ koy liggéey ci ay jat kadalika ndax képp koo xam ne da nga am problème mu kaaraange sa mbir doxul wala da nekk ci jafe-jafe ñu liggéey la ndax liggéey dafa am te yonent bi sallallahu alayhi njabaroon nañ ko nga xam ne waaye ji ko njabaroon mooy Labid ibnu Azam ak ay doomam dañoo njabaroon yonent yàlla moom sallallahu alayhi ba mënatut a jóg wa gannaaw loolu yàlla wàccee eh, falaxi ak naas yi mu mu awasete ni eh, mu ci la yàlla jël feebar boobu dal di ko saafara nga xam ne saar boobu noonu boo xoolee seen ab bunt aay mu ngi nekk fukki aaya ak benn biñ ko liggéeyee dañ ko pas fukki pas-pas ak benn bépp aaya buñ jàng rek pas-pas bi dal di fecceeku waaw saa loolu nag ñu ci liggéey ci lu ne nekkul ne falaxee ak naa si mooy faj bépp ja euh, euh, euh, jafe-jafe waaye ci leneen ak leneen loolu yàlla may nañ si incha allahu te képp koo xam ne jublu nañ ci ci wàllu liggéey kaaraange incha allahu képp ku la laal dina yàqu incha allah mm-hmm. waaw. macha allah tontu bi am na solo trop wéral nga ni mbirum kaaraange dafa nekk li nga xam ne dafa am solo te macha allah sunu borom may na la ci ay buntu yu baree bare ba tey jii képp ku si jëflanteeg yow rek dana gis résultat xam naa bu ñu paree ci mbirum kaaraange bëgg nañ tamit waxtaanee mbirum ubbeeku parce que mun nañ ne mënuñu waxtaanee kaaraange sans pour autant ñu waxtaan mbirum ubbeeku parce que daanaka mun nañ ne xaw nañ am ay bunt. Mm-hmm. waaw alhamdulilah ubbeeku dafa baax ci doomu aadama ndax doomu aadama bu nekk ci àdduna bi. te ubbeekul lépp lu ay moromam di def mën naa di ko mën a def te war na ci moom mu takk soxna war na ci moom muy faj ay xaajo ay waajuram wala faj xaajo képp koo xam ne mbokkam la wala képp koo xam ne sax jaamu yàlla la nga nga di ko dimbale buntab ubbeekaay nag am nañ ci ay bunt yu bari bunt yu bari ndax danañ koy liggéey ci alxuraan danañ koy liggéey ci sunguf euh, danañ koy liggéey ci Euh, sunguf sunguf nag suñ ko waxee mooy am na garab goo xam ne gu ñuy wax garab ak wen wen soo demee ci àll boo xam ne da ngay gis fukki juróom-ñeenti wen yoo xam ne dañuy séenante boo taxawee ci wen gi seen wen gële boo taxawee ci wen gi seen wen gële nga am si seen xob yi ak seen euh, xas mi ak seen ren yi boole ko def ko muy sunguf sunguf soosu noonu gannaaw bu ñu ci defee jet ñu ci def bind ay ay alxuraan sim ko defal euh, yëngat ko ba nga xamee ne loolu dafay sax ci sunguf bi sunguf soosu képp ku ko sangoo da nga ubbeeku danañ koy liggéey ci wàllu ubbeekaay tamit ci wàllu kurus danañ koy liggéey ci xalwa yu mel ni xalwa danañu am xalwa ñaari fan wala xalwa ñetti fan wala xalwa juróom-ñaari fan ba xalwa ñeent fukki fan ak benn nga xam ne képp koo xam ne bépp aajo boo am wala da ngaa bëgg a yëkkati ko nga xam ne loo bëgg rek incha allah yàlla dana la ko defal dañ koy liggéey ci xalwa kon buntu ku ubbeekaay liñ ci am bari na liñ ci mën a wax bari na waaye dañ ci tënk loolu rek rek rek nag waaw danañ koy liggéey tamit ci mm, alquraanu karim danañ koy liggéey ci sunguf yu mel ni boo demee garab gu ñuy wax wër wasóor wër wasóor boo koy wax ci olof mooy wër wër sëg wër wër sëg boo demee ci garab wër wër nga am juróom-ñaari garab garab gu nekk nga ut fa juróom-ñaari ak juróom-ñaari ren soo ko defee noonu di ko def ba mu mat juróom-ñaar nga boole kook sunguf boole kook ay ay alquran am jet biñ ci def képp ko ko sangoo say buntu dana bërsëg dana ubbeeku lépp loo soxla ci àdduna dana la jef dana la yomb lépp loo ubbeeku bunt boo ubbi rek yàlla dana la ci defal tawfiq macha allah. macha allah tontu bi am na solo trop. leeral yi am na solo trop mais ñu ngi dégg sa biir wax foofu noonu nga terminé woon rek ci mbirum duggum xalwa bëggoon nañ tamit nga ñëwal ñu foofu noonu parce que souvent dañuy dégg sëriñ si di wax dañuy dugg xaw la dañuy dugg xalwa dañuy dugg xawla bëggoon nañ xam lan mooy njariñu dugg xalwa. waaw xalwa dafa am solo ndax ñaan yàlla la goo xam ne dañ koy tënk ci ay fan wala ñu tënk ko ci ay waxtu wala ñu tënk ko ci ay guddi ci ay turu yàlla yoo xam ne danga koy liggéey. ci waajoo xam ne dafa am soxla te soxla bi jafe ko lool xalwa nag dafay aju ci nit ki ànd ak soxla bi bim soxla ki nga xam ne dafa soxla xalwaay ñetti fan loolu am na aajo bu boo xam ne xalwaay ñetti fan laaj am na aajo boo xam ne juróom uh, fan la laaj am na aajo boo xam ne juróom-ñeenti fan la laaj am na ajo boo xam ne mu ngi dem ba ñeent fukki fan ak juróom ñeent fukki fan ak benn léegi nag su waa ji ñëwee ñu dugal ko xalwa incha allahu balaa xaloo jeex dana ñu oo ne suñu aajo faju na loolu bunt la boo xam ne yàlla ñu ko may ñu am ci ndigal lool nag jëlee ju ko suñu waajur nga xam ne moo ñu yar defal ñu lépp lu nekk ci mu ñun nga xam ne moom moo ñu ko def jàngal ñu alxuraan xamal ñu leen mooy diine def ci ñun mbóot am alxuraan ba nga xamee ne lépp lu luñ joxañ ci alxuraan bépp xaajo buñ buñ joxañ rek képp koo xam ne bëgg nga nga sa aajo faju soo ñëwee boo ñu ko tawee te yàlla faj ko te loolu nekk ci ñun ci mayu yàlla waa maa bi nexmati rabbika fa hadis dañ koy sante yàlla ndax jaam bi lépp lu ko yàlla may war na ci sant yàlla dañ koy wax ci buntab sant yàlla waaw ndax nit soo amee may war nga sant yàlla sant yàlla nag mu ngi dale ci alhamdulilahi rabbil alamin géem a dimbale jaamu yàlla ci li la yàlla jëfal ci wërsëg macha allah macha kàddu yi am na solo trop daanaka mbirum xalwa tamit mun nañ ne sunu borom may na la si loxo bu gudd macha allah xam naa suñu paree ci loolu rek bëggoon nañ waxtaanee tamit mbirum noob parce que lu ñuy dégg souvent la bëggoon nañ nga ñëwal ñu ñëwal ñu si mbirum noob laaya ñu si biir ñu xam lan mooy dégg-déggi noob ana lan mooy njariñu noob. waaw alhamdulilah noob dafa baax ci nit ki parce que njaboot gu féewaloo baaxut ci njaboot te loolu seytaane moo koy def rab dana koy sabab. liggéey dana koy sabab loolu nag li koy sabab bari na waaye dama ci jukki yooyu léegi nag képp koo xam ne da nga am njaboot gu féewaloo wala koo xam ne da nga am problème sa digganteeg sa jëkkër wala koo xam ne da nga am pro jafe-jafe sa digganteeg sa wayjur wala koo xam ne danga am jafe-jafe sa digganteeg ndaw soo bëgg ngir takk ko soxna wala koo xam ne da nga am jafe-jafe sa digganteeg sa patron bi nga xam ne moom lay moom ngay liggéeyal ba mu indi la jafe-jafe foofu loolu dafay laaj nga dugg ci buntam nopp loo xam ne mooy boole boole ak tàppe seen xol yi ba nga xam ne dangeen mën a ànd ba dara du leen gàllankoor loolu buntam nopp boobu yàlla ngi ci may ay cër yoo xam ne mënuñ koo wax sax loolu may yàlla la koo xam ne ñu leen ko dañ koy liggéey ci àll waaye xànjar xam sa tur xisaab ko ak turu ki nga xam ne moom nga bëgganteet daldi ko xisaab liggéey ko ci àll waaye xànjar si kurus incha allahu ñetti fan wala ñaari fan laa la may nga gis ci résultat boo xam ne eh, da ngay foog ni sax kii nekkutoo kooku waaw loolu dañ koy liggéey ci buntam buntam nopp ak yeneen ak yeneen yeneen yoo xam ne yu bari la mënuñ ko lim waaye dañ ci jukki loolu loolu dañ koy liggéey ci nopp dañ koy liggéey ci nopp ci sunguf boo xam ne dañ dañ la koy defal ci garab gu ñuy wax ñàppantaan garab ak ñàppantaan boo demee ci nga xam ne xam na saalum saalum yi xam nañ ñàppantaal garab goo xam ne la wala gajj goo xam ne boo ko rombee rek dafa lay taq taq boobu ni ni ñàppantaan di def ci yow bu la taxee noonu la ne nit ki di def ci yow da ngay foog ne sax nit lii est-ce que kii mu ngi ànd ak sagom waaw loolu dañ koy liggéey ci bunt boobu tamit kazaalika ci alquran da nga si sunguf ci àlla waay ndax noob lu am solo la ñu ngi wax ne képp ku ñëw ci buntab jàmbu xeeb mi yàlla dana la ci defal tawfiq incha allah macha allah tontu bi am na solo trop tontu bi leer na xam naa tamit bu ñu paree bëgg nañu waxtaanee tamit xew-xew yi nga xam ne moom la ñu ràññee moo am si jamono bi nit ñi nga xam ne des fois dañuy demu bañ naan cat moo leen topp wala làmmin wala ñu def leen ay ñaawteef yu si mel ni liggéey sëriñ bi xew-xew yu nu mel est-ce que nekkul tamit comme ni ñu ko waxee woon ci wax ñàkkum kaaraange mooy waral li ni mel. waaw euh, dafay delluwaat ci buntu kaaraange. xew-xew yooyu li koy sabab ci nit ki mooy nit koo xam ne mbiram dafa yëkkatiwoon dem ba nga xam ne ñu ngi koy dégg ci alal da nga ba nga xam ne nit ñaa ngi koy dégg fu ne ci mu am tawfiix dem ba mu yàgg ay mbiram daal di def suuf li ci ëpp nag li koy def mooy cet ak làmmañ cet ak làmmañ lor na ku ne képp koo xam ne dangaa wéet cet làmmañ cet làmmañ daf laa jotewul loolu dañ koy liggéey ci li nga xam ne dañuy jël sa tur ak sa tur jur gi nga li nga xam ne mooy baatu cet baatu baatu làmmañ muy gémmiñ dañuy xisaab mooy lisaan xisaab lisaan ak famm muy euh, muy gémmañ wala ak bët mooy ay na soo ko lisaabee am ci aaya alquran yi ñu ko bind boole sa tur ak sa tur yaay képp ku ko sangoo cet moom dootu mën ci yow dara waaw dañ koy liggéey ci tamit ci ran ren euh, goo xam ne dafa galang yoon ren gu galang yoon ci boole ko ay aaya alquran nga sangoo ko boobaa yow dangay ngay dal di tul cet cet doo ci mën ci yow dara képp koo xam ne catu na la sax da nga gis ne moom dafa am problème dafay nekk ci ay jafe-jafe waaw loolu incha allahu yàlla may nañ ci bunt boo xam ne bunt yi bari na waaye loolu lañ ci am loo xam ne dañ leen koy wax ngir ngeen taataanu ci incha allah. xam naa ci bunt boobu noonu foofu nga terminer rek bëggoon nañ tam ñëwaat foofu noonu parce que jamono jii ñu toll am na benn homme d'affaires boo xam ne dañ ko ràññee ci réew mi macha allah yàlla may ko am am bu am doole te guddi yi ñu toll daanaka dañ gis ni ay mbiram dafa taxaw daanaka ñu bëri ñu ngi wax nag dafa nekk si jafe-jafe ban jàngat nga am si lu ni mel. waaw alhamdulilah li ngeen ma laaj noonu dinaa ci tontu ndax kooku ngeen di wax di homme d'affaires boobu ñu wax ne mooy Cheikh Amar dañoo gis ci gént wala ci ay xalwa yoo xam ne def nañ ko du benn xalwa du ñaari xalwa gannaaw bi ñu ko defee yàlla wan ñu ci moom. ne am na ay song yoo xam ne ñu ngi koy song ci wàllu gàllaaj ci wàllu xeex yoo xam ne ñu ngi ko koy xeex mu bàyyee ko ci ay dëkk yu fasante ko ba loolu def taasir ci moom def jeexital ci liggéeyam ba nga xam ne jamono bi ay jafe-jafe yu bari mu ngi ci moom ci wàllu yaramam ak wàllu wére dég yooyu yëpp ñu ngi koy wax ne na góor góorlu ci wàllu mm, kaaraange na góor góorlu ci wàllu aar yaramam na góorgóorlu ci wàllu aar liggéeyam ba nga xam ne ne nam meloon wala lañ ko doon déggee danañ ko déggee ni ko raw gannaaw bu ñu ko déggee loolu mu ut loo xam ne daf koy sampu dëgëral ko ba xam ne dara dootu ñëw pour fànq waa euh, liggéeyam loolu lañ koy mm, dénk loolu lañ koy ñaanal yàlla tamit yàlla delluwaat ko ci loolu ñu ngi koy wax ne kaaraange googu ñun dañ koy liggéey ci lu bërëb yu fasantikoo danañ koy liggéey ci wàllu xeeru euh, boo xam ne dafa nekk ci teen bu të ci ay aayal xuraan yoo xam ne ci juróom-ñaari teen bu ta ngay dem teen boo dem da nga fa ut juróom-ñaari xeer soo boolee xeer yooyu am ay aaya alxuraan yoo ko booleet da ngay jël aaya yooyu gannaaw bi nga ko bindee ba pare da ngay tàngal saafara bi ba mu tàng jël xeer yooyu baxal ko ba mu bax nga dal di ko sotti ci saafara ci dal di ko sangoo juróom-ñaari fan képp ku la laal yaramam dana yàqu danga koy gis muy wàññeeku danga ko gis muy tawat da koy gis ay mbiram di delleeku suuf mën naa caa doxee faatu kon ñu ngi koy wax ne na nag lu ci wàllu kaaraange danañu liggéey ci nomba goo xam ne nombaay kaaraange lay dox nomba gi képp ku ko am lépp loolu ku la joxoñ baaraam dal baaraamam dal di faq danañ koy liggéey ci ay sunguf yoo xam ne sunguf yi ñu ngi koy liggéey ci sunguf pos ak sungufu garab guñ mbooleem garab garab juróom-ñaari garab yoo xam ne daal ay garabu dëgg la garab yooyu mel ni pos yu mel ni sam yu mel ni euh, garab ak euh, euh, nu mu tooti njuy yi gannaaw yooyu yëpp dañ leen di boolante sunguf boobu daal ko boole am ay alxuraan am jat buñ ci def képp ku ko sangoo ñetti fan laa la may nga gis say noon di wàññeeku da ngay gis say noon di wàññeeku du am jafe-jafe jamono bu nekk kon ñu ngi koy wax ne na góor góorlu ci wàllu yaramam na góor góorlu ci wàllu liggéeyam ngir delluwaat fa mu nekkoon daal di samp boppam samp njabootam yàlla defal ko tawfiix macha allah kàddu yi am na solo trop dénkaane yi am na solo xam naa bu ñu paree ci loolu tamit bëggoon nañ waxtaanee mbirum jafe-jafe yi nga xam ne des fois góor ñi moom la ñuy am seen néegu sëy muy wàllum néew kàttan waaw néew kàttan bëri na ñu dal am na ñoo xam ne li koy sabab ci ñoom mooy liggéey bu ñu leen def ba nga xam ne seen xaw seen kàttan dafa néew am na ñoo xam ne rab moo leen koy def faru rab am na ñoo xam ne dañuy foye seen bopp ba nga xamee ne sëdd bi tax seen kàttan dal di dëgër dal di bàyyi loolu yëpp nag dañ koy liggéey liggéey bi ñu koy liggéey ci dañ koy liggéey ci ren boo xam ne renu caxat la ak ak ci ay alxuraan yoo xam ne yu ñuy bind la nga boole kook yar renu caxat boobu noonu wala ak xob ya dal di ko baxal nga di ko naan jamono bu ne wala gannaaw loolu danañ koy liggéey ci yeneen ay alxuraan yoo xam ne képp ku ko gis da nga xam ne lii nii lu lu am solo la mooy gannaaw boo ko bindee da nga koy booleeg gar euh, lu ñuy wax lem lem soo néegee ba jant bi di di sox nga koy naan bala ngaa tëdd incha allahu da nga yëg sa bopp te lépp luy wàlli tële dafay dëñ su nekkee na rab a ko sabab rab dañ koy faj dañ koy dindi ci nit ba nga xamee ne lépp loo xam ne daf lay gàllankoor ci wàllu tële ci wàllu am-am sa wàllu wërsëg nga lam dab daf koy def tële la sa gàllankoor la sa wàllu wërsëg ba nga xam ne loo uti doo am gàllankoor la sa wàllu euh, ngóoro ba nga xam ne loo uti doo am gàllankoor la sa diggante nit ñi ba nga xam ne sax boo bëggee soxna dafay jafe wala boo bëggee jëkkër dafay jafe loolu yëpp daf koy gàllankoor macha allah. waaw ci loolu rek la ñuy continuer waxaale tamit nga laay ñu biir si parce que dañuy dégg souvent tamit mbirum faru rab. waaw faru rab lu am la nit ku ne. dafay am am dafa am na rab boo xam ne moo ànd ak moom rab nag mun naa am duñ ko dindi moom waaye dañuy fexe loo xam ne dafay daf lay jubaleeg sa rab ndax nit ki rabam dana koy dimbale waaye rabam dana koy lor amaana nga def sarax boo xam ne dëppoowut ak sa rab rab bi dal di la wan gannaaw amaana nga sangoo saafara boo xam ne dëppoowut sa rab rab bi daal di la wan gannaaw di la yàqal am na ñoo xam ne alxuraan mooy seen mbir am na ñoo xam ne sunguf mooy seen mbir am na ñoo xam ne bu ñu sangoo sunguf duñ gis dara wala gàllankoor leen di indi am na ñoo xam ne bu ñu sangoo alxuraan loolu tamit kazalika noonu lay demee alxuraan gaawut seen mbir waaye loolu bu ñëwee danañ la xool bi nga xam ne lan moo dëppook sa mbir ak lan mooy dind sarab wala lan moo lay dëppalee sarab ba nga xamee ne rab dana la baax définitivement nga nekk si jàmm am jàmm am tawfiix lépp loo bugg yàlla defal la ci tawfiix macha allah. macha allah tontu bi am na solo trop. xam naa balaa mënuñu tëj waxtaan bi tamit sans pour ñu waxtaanee jamono yu ñu toll dañu seet ni dañu gis ni jamono boo xam ne jamono yu wut la jamono yi njëkkante la jamono yu buuxante la tey ji doomu aadama yu bëri dañu nekk di xëccoo ay mbir di pour am am genre ñu nekk ci ay jafe-jafe tey jii lan ngay laaya biir ñooñ nga xam ne tey jii dañu bëgg dara am am bu gaaw wala tey jii ñu bu ñuy wut dara wutum mbooloo nekk li nga xam ne daf leen jafe ñu bëgg tamit toog ci place loolu nekk li nga xam ne daf leen të. waaw alhamdulilah ki nga xam ne dafa soxla mbooloo mbooloo dafa baax ci liggéeykat ñi nga xam ne dañoo nekk ci bërëb nekk ci am boutique boo xam ne dafa nekk ci marché nga am bépp marchandise sa mënoo jaay dafay laaj nga soxla mbooloo mbooloo moomu danañ koy liggéey ñun ci doomu koko koko ku ne xam na ko la ñu bind sox ko ci bopp doomu koko bi mu nekk loo xam ne mbóot la xam ne incha allahu képp ku ko def sa bërëb mbooloo mi dana la dikkal léegoo-léeg danañ laaj sax marchandise boo xam ne fekk amoo ko nit ñi danañ ñëwal di bëgg si ñëw afwaajan ay afwaajan ay mbooloo ay mbooloo loolu tamit danañ koy liggéey ci sunguf sunguf boo xam ne xobu bàpp lay doon xobu bàpp yi ñu am bépp xob ci lim am ab lim bind ci ab aayal quran def ko sunguf jëlaat loolu bindaa ko dellu delu defaat ko mu nekk saafara bu jaxasoo ko loolu nga koy taxal ci sa jamono bi nga xam ne fi ngay fi ngay nekk dafa dafa liggéeyee mu nekk saxaar di suudu loolu képp koo xam ne yaa ngi ci yaa ngi jub loolu rek mbooloo daf lay ñëwal jamono bu nekk. ñi nga xam ne kazaalika dañoo am ay école yoo xam ne dañ ko ubbi bëgg école bi am ay mbooloo kazaal loolu dañ koy liggéey bunt yi bari na lool lool lool lool mënuñ koo lim sax waaye dañ ciy tënk loolu nga xam ne képp koo xam ne am nga xaajo boobu nga ñëw soo ko defee yàlla danañ la defal yàlla dana la defal tawfiq te da nga am mbooloo incha allah. macha allah sëriñ bi waxtaan bi am na solo trop mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf ñu tënk. xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggoog suñu mbokki internet yi. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla beneen yoon di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ak tey sir ci lépp lu ñu bëgg di ñaanal yàlla jaamu yàlla yi ñu ngi ci bunt boo xam ne tey ci weeru wala xam ne weeru rabiul awwal mooy weeru yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu nga xam ne mooy yërmande ñeel mboolem mbindeef yi yàlla ko wàccee mu nekk yërmande ñeel mënuñu mbindeef yi kon yenent boobu noonu ci juddum lañ ne war na bépp jullit muy am mbégte di fuglu bës boobu di fuglu guddi googu di ci ñaan yàlla di ci baalu àq di ci def ay sadax di fi dimbale jaamu yàlla yi ngir yàlla defal ñu tawfiix ñu ngi ciy ndokkeel nag bépp jullit rawatuni suñu sëriñ Mawlaana Cheikh Ibrahim Niass mi nga xam ne weer bi bu jotaan dafa nekk nit koo xam ne nit ku tabe lay doon nit ku yaatu lay doon nit ku taaru lay doon jaamu yàlla ñëw di ko di seen soxla du tëj buntam nga xam ne kon ñu ngi ko ñu ngi ñu ngi ñu ngi def tawaaf ci moom ñaan yàlla yàlla defal ko defal ñu tawfiq ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm mu ngi wax ne ani an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada li naadirina jamaaluhu hilaalun rabii fii jaa muhammadun fa tamma lana al bushra wa hamma ñu ngi koy wax ne di ko ndokkeel ci weeram di ci ñaan yàlla lépp ñu ci ñaan yéen yàlla defal ñu ci tawféex ak taysiir ñiy dem yàlla yóbbu leen ci jàmm andi leen ci jàmm ànd ak bépp faju xaajo ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen gërëm di leen sant incha allah alhamdulilah